ngi koy kamal ni muy dokalee bi mu amaatee mandat bi ba tey képp ku ko wax kontaan na ci liggéey ni muy dokalee da koy nakk kontaan nuñ ci tey te kontaan nuñ ci suba parce que nag nit ki booy wax waxal sa diggante ak yàlla ñi liggéey dañ leen wara sant gërëm leen waaye nag ñu liggéeyut ñu jël ñi liggéey di leen ko jox ñi liggéey ñu ne leen taxaw leen fale man duma ci ànd parce que loolu loo moo taxoon ma ànda bañ ànd ak moom bi muy xeex ak Ablaye Wade bi mu gënee métti ñu ñeme ànd ak moom engagé ci wetam ba tey ni muy doxalee ay lobby yi ñuy def fii ci wetam ñun ànduma ci ànduma ci tey ànduñu ci suba li tax loolu nag bu ma koy wax man sama bopp laa engagé ci sama bopp waaye dama ànd ak sama collègue député honorable Malaw Sow di Mamar moo def procuration bi jox ma mu ne ma lépp looy def ñun ñoo koy defandoo lépp looy wax ñun ñoo koy waxandoo kontaan nuñ ci nu koy nu muy doxalee ci liggéey bi kontaan nuñu nu ñuy doxalee ci parti bi parce que dafa war a respecter ancien APR yi dafa leen a yëg waaye nag warul ñu jël di ñu def ay yekkale te moom nañ wax lan la bugg parce que bu gunge nañ ko premier mandat gunge nañ ko deuxième mandat bii dafa war a def résultat te loolu lañ kaaroon ci moom waaye du questionné di jël ñoo xam ne kenn xamul fu ñuy jóge di leen favoriser ci ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb ak barke démb bi mu méttee ñooñu dañoo nekkoon di ko xeex ñun ñu nekk ci wetam bu ree amoon ñun la rey bon tey bu ñëwee ba mu meneek ci kotam war nañu fàttaliku mu bayee ñu xel waa waruñu fàtt parce que ni may gisee Macky dafay neewal doole bépp responsable bi fii njëkkoon nekk di favoriser ñoo xam ne duñ mos a nekk fii loolu nag duma ci ànd tey duma ci ànd suba en tant que honorable député Yaya Sow ànduma ci li tax ma wax nag ci renouvellement bureau assemblée nationale niñ koy doxalee kontaanuñ ci ànduñu ci ku wax ak ku waxut man nag danaa am naa sañ-sañ wax te am naa sañ-sañ dama bokk ci réew mi danaa wax lu ma métti parce que nag du ma nekk loo xam ne métti na ma ma koy bay